da koy da koy woote te dañuy dem wuy ji à chaque fois bu ñu wooyee bu ñu demee participer mhm. mais bi yoon nag secteur privé moo wootee euh, états généraux de l'économie lan lañu mën a jàpp ci états généraux yooyu pour ñu xoolaat li mhm. mel ni suukar si xool lu mel ni ceeb bi xool économie bi ni muy doxee mhm. xool nu ñu mën a organiser économie bi xool ni par exemple société sénégalais yi pour ñu mën a am Euh, lu ay avantages il faut ñu nangoo bokk créer ay sociétés. Mhm. ay sociétés yu am doole. su ko defee ñu mën leen di confier ay ay marché ñan ñooy composé boobu état généraux ndax acteurs yëpp daan ci bokk. ndax itam ñi nga xamante ne ni également euh, seen xel màcc na jëm ci wàll ñëpp. associé nañu leen ci ci ci mbir mi secteur privé yëpp la ñuy woo. d'accord exécutif yëpp la ñuy woo. Mhm. administration bi la ñuy woo président de la république en premier. Mhm. ak gouvernement ñëpp ñu ñëw toog. ñu échanger discuter ba d' accord ci ni modèle bi bu ñu ko doxalee ñëpp d' nañ ci ni dana baax. Mhm. ñoom ñu approuvé. Mhm. suñu gisee ne lii lu baax la ñu approuvé. Mhm. bu ñu gisee baaxul ñu corriger ainsi de suite ba l' ñoom benn modèle boo xam danañu permettre ñu avancer. mais suñu ko deful. un éternel recommencement la ñu nekk tout le temps. yaa ngi wax ne da ngeen a àndul moo indi problème yi. Mhm. sama njëlbeenu laaj maa nga ko doon xaw a brosse tuuti muy sursaut patriotique boobu. ndax mhm. dafa mel ni euh, importateurs yi commerçants yi li leen gën a yitteel mooy. profité ci dippa yi daal di ciy dil euh, def ci ay mbuxum euh, defal ñoom seen seen seen mbiru bopp fàtte askan wi. loolu ku ko créé xam nga état moo yore dippa yi. moo yore organisation bi mooy libéraliser mooy organiser. Mhm. ñun ay acteurs lañu rek. léegi nag bu ñu ñëwee ñoom créé ko ba pare di jox ay nit ñu ciy profité. Hmm. ñoom ñu ciy profité ñoom ñoo ko def mënoon nañ ko bañ a def bu ñu defoon lii nga xam ne moom la ñu war a def peut-être loolu du am. Hmm. mais li ñu créé nii condition situation bi moo permettre ñu ngay wax di ci profité. d' accord di dippa bi am ci suukar si est-ce que quota yooyu ba tey mi ngi am ci ceeb bi comme temps wu Abdou Diouf ñu ko ñeen ñi doon dénoncé si jamono yooyu. non ñu doon dénoncé ci jamono yi Abdou Diouf doon quota sénégalais yi quota commerçant yi. mais quota wu imp maanaam bi nga xam ni moom la caisse de péréquation daan am. pour di importer dafa amoon moom dañu def appel d'offre euh, multinationale ñëw di positionné di di postuler. Mm-hmm. léegi nag chaque fois benn société moo daan gagné. te xamoon nañ ki nekkoon derrière la société là c' était kii la famille ci famille bi la bokkoon. Mm-hmm. loolu moo taxoon gaañ di critiquer démarche boobu ni léegi pourquoi toujours même société bi mooy gagné parce que y' quelqu'un boo xam ne dafa leen jege moo tax loolu di am léegi nag ñu loolu lañ doon critiquer mais quotas yi sénégalais yi. quotas yi commerçants yi. musul poser problème boobu importance. problème parce que amul importance bu am solo. ñun ceeb musuñu ko considérer comme lu ñu war a mën a may xaalis. produit d'appel lañ ko daan defee. da koy am pour mën a jaayale yenn produit parce que marge bénéficiaire bi nga ciy am te contrôle économique yaa ngi fa bariwuloon mhm. donc li li ngay jënd li ngay jaayee mënoo jaay lu ko ëpp parce que boo ko jaayee njàpp la d'accord loolu moo fi amoon alep ñi ngi wax ni prix dañ ko homologué yow nga yore mouvement boo xamante ne ni daal yaa ëmb ñëpp ñu yore ci mbirum importation wu hmm. euh, denrée de première nécessité nga xam ne hmm. actuellement moo nekk actualité hmm. à part euh, ceeb bi diwlin bi yan produit tey ji moo cher boo ko laalee li nga ko doon jëndee bu njëkk ba ak léegi dafa am changement bon booy xool diwlin bi suukar si ceeb bi mooy les principaux li si moom dañ la koy considérer comme des produits de luxe mën mais lu mel ni ceeb diwlin suukar moom mun la ñàkk. donc yooyu mooy les principaux produits nga xam ni ci la war a liggéey ba mu nekk ci ay condition yu ay loxo yu leer yu wóor yoo xam ni liñ ci war a def dañ ko ci def te état bi di leen di leen surveiller aussi parce que aussi dafa nekk loo xam ni mën nañu koo fexe ba mu am ba ñu am ci lu doy. lu mel ni ceeb bi comme ni ma la ko waxee depuis 2003 ñu ngi fi ak schéma boo xam ni ba léegi c'est d'actualité mën nañu fexe ba ñu am autosuffisance. Hmm. te loolu mi ngi suñuy loxo. d'accord mais mm-hmm. état bi bëggoon na ko. waaye yoon moom jëloon comme nañ ko defoon société bi rek. Mm-hmm. moo taxoon doxul. ba 2017 bi ñu waxee ne dañu am 2017 autosuffisance. mooy dëkk taxaw boole woon nañu leen ci waxtaan bi ginnaaw bu ñu bëggoon euh, autosuffisance alimentaire. boobu jëm ci wàllu ceeb bi waxtaan bu yaatu amoon na. xam nga euh, boole ci waxtaan ak déglu la du benn. Hmm. mën nañ la boole ci waxtaan te duñ la déglu. buñ la boole ci waxtaan pour la forme nga ñëw te duñ la déglu. jàppoon ngeen ba pare ñu jël décision boo xam ne du bokk ak ba war a jël. Hmm. comme ni ma ko waxee xam nga. Hmm. lu mel ni loolu ma la wax 2003. ma wax mu ne dana ko def defu ko. mille 2008 crise bi ñëw. bi crise bi jàllee mu woo ma ni ma indil ma schéma ma indi schéma jox ko. <laughs> mu boole maag ministre du commerce taxul mu dox. Eh, eh. Mm-hmm. kon taxul mu dox am na lu ko yàq. Eh, mm-hmm. lan moo ko yàq ñi nga xam ne ñoo bokk société bi. Mm-hmm. waroon naa def parce que boo créé sa société bopp dangay dem ca banque ba joxe say garantie yu mat ñu lebal la. d'accord bu boo te yow rek yaa ca nekk boo amee problème yaa koy wéete. Mhm. say say bien la ñu saisir. mais lii kay dafa yombal mbir. est-ce à dire qu'on refuse le développement. on refuse le lay nuru. ndax soxor en lieu et place ndax soxor. Mhm. ndax soxor parce que soxor mooy. yow sa bopp rek ngay xool xooloo ñu si des. d'accord mhm. waaw individualiste. d'accord te loolu du lu lu mën a développer réew. réew pour nga man réew mën développer il faut ñu ñëpp ñu bokk ndey bokk baay. bëggante jàppante di yëkkatee di turaloo mooy tax mu am effet. waaye individuellement. duñu duñu dem mm-hmm. fenn d'accord euh, ñi ngi évoqué contexte Covid bi. Mm-hmm. mais est-ce que tamit mënul nekk loolu avantage tey yaa ngi wax léegi ni autosuffisance bi nga xamante ne nii waxoon nañu ko mais ce qui est paradoxal aujourd'hui mooy ñun duñu consommer li ñuy dundee te ceeb bi euh, li fi ceeb bi ñuy bayee fii euh, dafa cher. Mm-hmm. ñu ci bëri duñ ko jënd suukar si nga xamante ne tamit fii lañ koy defaree tamit dem Gambie wala yeneen dëkk yi ñu gën a jege jënd ko fa moo gën a yomb moo ko loolu nag <laughs> ceeb bi loolu doy mënoon nañu <laughs> mënoon nañoo yem ci ceeb mm. a def autosuffisance en riz en sucre mënu nekk mm. soxla li gën a mooy ceeb suukar si nañ ko bitim réew mu jógee comme ni ko Gambie di jëlee ak Mali ak mm. mu yomb lool te douane bi di encaissé dara lu bon bon te ñu concentré wu. ca jamono yooya yi ñuy suukar su euh, terre yi di ko jox Mimran. buñ ko newoon soxla wuñ suukar ceeb lañ soxla. kon dooleem boobu dana ko def ci ceeb bi te kon ne tey bu ko defoon. doon na doon nañu am autosuffisance ci kaw nag ñu organiser ko. parce que aussi mënuñoo bàyyi nit ki mu bàyyi moom rek. transformer moom rek. jaay moom rek mënul nekk. pour mu dox. Mhm. il faut mu am ay chaîne de valeur.